man la ndax soo teew mel ni damaa boo jaamoo ci yow kontaan nañ ci ñoom ñëpp ñu koy ñoom kontaan presque gis nañ sa taxawaay gërëm na bu affaire bi discipline ndax mbas mee tax waaye mbas bi yàlla mbas bi dem yàlla mbas bi dem yàlla ni yàlla mu ci mbas moo war ñu demee gërëm nañ ñëpp mbas bi gërëm nañ ñëpp Thank you. sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rahmani rahim naa ñett xaleel man ko yàlla naa ñettee jaaree fa bëgg ma du man kese la bëgg de mbëru géej waay yëpp la bëgg ndax ku ci ñëw mu jàppale la boo yorul xaalis sax mu yëkkati xaalisam jox la defal na ma ko defal na ko sama morom kon donc bu teewee fii dama koy wax mbaaxam pour waa senegal xam ko yàlla may na ko kenn bañalu ko lool mais itam dañ koy santaat di ko gërëm ci nit ñi maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam Prince Benjamin yàlla na ko yàlla bàyyi ak soxnaam bàyyi ko ak doomam waaw di sant kilifa diine yëpp di ñaan kilifa diine ñëpp ñaan xama mbas bi jóge fi waaw mbas bi jóge fi yàlla na fi yàlla def jàmm senegal di masulu ñëpp daal waaw di santaat Prince Benjamin di ko santaat bu baax a baax a baax waaw di sant sama xarit dama war a sant la daggee parce que premier su moom du nit bu baax mbool bi du am su moom du nit bu baax télé bi yëpp du am comme may ko ñaanal jàmm ci sëy bi am na jigéen boo xamante su ñoom xasa am doom seen caractère changé mais may ñaan yàlla ci sëy bi pour ndaw si caractère bañ a changé doom bu góolu dinaa juddu doom bu jigéen dinaa juddu seex dinaa juddu xaalis moom dinaa jërë pour dundu xale yi du nekk problème ci moom yàlla dinaa may moom am jabaram gudd fan am wër moom dinaa dund ba gis doom yi doom yi setam yi loolu laa ñalan la daggee parce que moom borom baax la ànd combat boo xamante moom dina amati mu am dam ci kaw ku muy bëri avec parce que en tout cas pour moom defe jegewu ci jekkewu ci lokom victoire moo jëkke ci lokom comme may koo ñaanal jàmb an salam moom dina am jàmb am fu moom bëgg egg moom dina egg ci jàmb an salam wasalaam ñu na waa senegal yëpp ak ku mu nekk ak lu mu sant en télé yëpp bu nekk fii tey asalaamaaleykum waa àdduna. jërëjëf merci la nuyoo. sama doom. sama xarit du xol baay ba heure bi ñaan papis waaw man sama jàmm de nga am doom bu góor daal di koy tuddee sa waajur bu góor lan nga yëg. waaw mais sant yàlla rek ndax jullit bu nekk loolu lay ñaan yàlla am doom bu góor tuddee ko waajuram xam la eh, am ci mbégte baax a baax baax am doom bu góor yi tuddee ko sama waajur bu góor ndax nit amul lu dul waajur waaw nit moom amul lu lu waajuram waaw te sama waajur moom xam nañ fi ma toll si moom. Sénégal ñëpp wuy si la maanaam bu dul woon mbas bi sax fii nii nit du fi lan nga yëg instant bi nga toog. waaw am mbégte rek am mbégte ah parce que tey mooy li ma la wax nit ak yar rek yar lu mu la xañu du la may euh, ñi ma wuy si ñëpp aw ma seen fay parce que mënoon nañ dem def yeneen yitte mais ñu bàyyi seen lépp ñëw teew fi presse bi ñëw teew fi te dafa ma leen dërëm kon donc ñoom euh, su ma nee am naa seen fay waxuma li am kon donc maa ngi sant ñu fi teew ñëpp. maa ngi santaat encore ñu fi teew ñëpp samay xarit démb ak samay xarit tey ñëpp laa boole ñëpp sama papa yi nga xam ne dañoo jóge ci cité bi ñëw waa fiñ mi ñëpp waa cité bi ñëpp ñëpp a teew kon donc am ci mbégte bu baax a baaxu di sant waa presse bi nag waaw presse bi ñu ngi leen di sant bu baax di sant tamit imam waaw maa ngi lay sant baax a baax amin amin amin amin amin waaw. première dame loo koy ah, macha allah di ko masalu coono. Euh, di ko ñaanal yàlla bant bi ko yàlla jox euh, yàlla na ko jariñoo euh, yàlla na ko dimbali ci lépp loo xamante ne tey bëgg na ko ci àddunaam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sono looma ci dara nag nekk ak dafa métti lu nekk da koy dégg lu nekk da koy gis kon donc na muñ bu baax a baax te góorgóorlu. ñi nekk rang bi xanaa dinañ toog léegi. ñi waa papa ziar nañ la bu baax a baax. ñu nekk ci. nekk rang bi xanaa dañ toog léegi nag. dafa moon ñu nekk rang bi. bien sûr. ah ñaata ñaata rang la. bari na. ah ñaata rang. bari ah, doy na waar de. nee na ñaata doom nga bay. instant bii ne ah benn lama ma yàlla joxagum. waaw. benn benn a ah? da nga koo bàyyi. kan laa bàyyi. ñuy ñëw heure bi sol da leen bàyyi. instant bii nii original dafa am ah am am deuxième choix am troisième choix. ah yow yaay original bi. <laughs> Papis dama lay bu baax a baax. merci beaucoup merci vraiment ah. non sama grand. waaw. Euh, bisu la de Guiers numéro soo ko ci gisee warul laa mën a bett mbaytin taaw Lac de Guiers am nga raq fu mu ne nii de. <laughs> day waage <laughs> day waage waaw waaw mën naa ne waaw kontaan rek ndax mbër bi moom xam nga toll nañu foo xamante ne nii mooy loolu quoi. surtout man man moom sincèrement parler xam nga maa yëg quoi jàppee ko mu rakam bu mu bokk ak ndey ak baay lépp lu mu xewle barki sëñ Bamba Mbacke billaay man lay njëkk a woo keroog ba jabar ji amee doom ah ay 6 la am doom ci la ma woo xam nga kooku ñun mënuñu koo fay quoi mbër mi war na Serigne Touba Mbacke. waa première dame première dame dëgg yàlla. waaw soxna su baax la ku yaatu la ku bëgg ku bëgg doomu aadama la wóor na alxuraanu kay man mii gaa dama maa jàppee comme papis billaa walaay heure su ma ñëwee gaa xam ne man foog man rek man ku baax la wóor na Serigne Touba Mbacke di ko ñaanal ak yàlla may ko njaboot gu barkeel moom laa koy ñaanal mbër tamit borom baax la mbër instant bi li nag laa koy ñaanal quoi muy la mu doon waa roi des arènes billaa walaay ndax moom dafa baax quoi xol te roi bi si yàlla day ñëw waaw. nuñ ko waxee Papisa moo woote doomu Géejawaay mu mu ne maa Géejawaay ne fi ah foog ñu wax ak moom nuyu naa la. maa lay fay a Mbacke waa Leewtoo eh, Assou Mbacke ak Assou Mbacke namm naa la ci loolu gis naa laa gis ana Aida ma ngi ca jàmm. ay daas kenn du daas waaw maa leen ziar ndax def ngeen lu rafet ndax tey Lac de Guiers su xewlee ngeen def déplacement daal di ñëw. def ngeen li nga war a def xam ngeen ni làmb leen ñor làmb moo leen intéressé ndax lat suñu rakk la man su ma teewee teewal naa waa Géejawaay gépp gépp laa teewal ndax lat suñu rakk la te man maay seen mag àdduna amu solo fii loofu gis dafay jeex hmm? ndax man yéenuma ci kenn lu bon ñoom ñëpp jàmm laa leen yéene ah? day bàyyi wax ju sew ji tey wax ca kaw di wax wax bu dijj wax bu sew baaxul suq yeeg cogg yi nga xam ni ñooy topp ci ginnaaw mbëri di wax rek di dem di indi di dem di jëli nan ko baax te bañ a nekk benn nopp tey déglu ñaar nopp te bañ a nopp dégloo benn nopp donc ma ndax àdduna amul solo Lac de Guiers nag doom ji yàlla na màgg dem bañ koy ñaanal li jabar ndax lii leen ko doon ñaanal man maa takki woon sëy ba tey ba may takk sëy ba lii laa doon ñaan bis bu rafet tey yàlla def na ko alhamdulilah lii di si des nan ñaanal xale bi mu dem ba màgg ban koy ñaanal li jabar te nag ah li mu def sama xol da cee sedd góor la mu tuddee ko papaam tey su doon jigéen la xam naa yaayam la koy tuddee yaayam yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaye dërëm bi génnul gaal gi benn la yàlla na ko yàlla lafal cat. soxna si soxna si li ma koy wax mu góorgóorlu xale la na góorgóorlu te muñ sëy benn sëy neexul waaw na góorgóorlu rek na góorgóorlu te muñ ñoo ko ñaani woon waaw na góor te muñ rek àdduna amul solo ay ndey mbàkke kenn du yow. macha allah. kinaalata xusaymata mudrikata iyaasa maamu daarin na ñëpp do magal muhammadu rasulullahi kinaalata xusaymata مدركة إلياس مأمودار na ñëpp def ni noo màggal Muhammadu Rasulullahi ba kerek darab maan aram loog maam kumba jaam ngañ pendak penda xaar yàlla bopp joor sëriñ Babacar si ndar ndar baa ngi pap si la sant yàlla gurriir am nga ndam sant yàlla sa borom si bu la laajee ko bëggul lool neel Sëriñ Babacar Si bëgg rek dara maan aram la ku jaam ngañ penda ak paate penda xar yàlla boppu joor Sëriñ Babacar Si nar na baa ngi waaji waaw waaw doo ko mu say présenté sa àndandoo du ko fàtte bu la gisee di ko laajte xalifa moo amugu jagle la dëgër ki nga doyloo moo di sëriñ Babacar Si baayu sëriñ man baayu sëriñ Mansour mi nu joyta noppeegunu baayu Seex Tijaan Si almaktub sa waajaagi xalifay lamp ngor loo bañ bañ mu tiim la tey leeral lii la yàlla def ku sopp sëriñ Babacar Si ne ni ñu màggal joojolu e waay yar joo yar joo maw doone yar joo bi nan aw nan xay ومحتسب واي أرجو أرجو أرجو من الله عورا خير منتظر جنانك قصيمة مدركة إيا صمام دار يا إسوبي